waaw ñun li ñuy ñaan rek li ñuy ñaan mooy ñii ñi nga xam ne nii ba ñu amee 18 ba léegi fii lañ mës a voté tey dañoo xëy ñëw pour voter ñu ne leen seen carte new fi loolu loolu loolu dañ koy partager ñëpp yëg ko donc bu ñu gisee leneen ak leneen woowuñ kenn si loolu xam ne fitna la mais on a le droit de euh, de faire le vote qui est utile de dénoncer parce que il va leur revenir ñoom par devoir de nous accompagner dans le vote qui est un qui est un geste civique boo xam ne ñëpp war nañ ko mën a def Touba ku leen xam ne si xam nañ si yar la ñu ànd mais nag du ay dof ñun ñëpp dañoo jàng comme ñoom ëpp ñu xel ëpp ñu lenn ku si jàng français sa moroom jàng na dara yàlla benn xel bi lañu ñu moom amul xeebaate nañ ko teg si yoon ñu voté si jàmm que le maire gagne man loolu laay woote. ñun tey dañu am lu ñu naqari trop ndax ñun ay murit la ñu gëmuñu lu dul Serigne Touba sunu sunu sunu Serigne sunu kilifa jox ñu ndigal loo xam ni ñun moom la ñu fas yéenee jëfe mooy dañu dal teg mbir mi ci yoon ñun nag jàmm gu muy woote ñun ñii ñëpp ñoo ci jiitu ñun waa Touba ñun jàmm la ñu bëgg fas yéenee nañu jëfe sunu ndigalu Serigne bii ndax moom lañu yaakaar àddina ak waaye ñoo ngi gis nag loo xam ni. nañu nañ ñu respecté te jox ñu cër ndax yi ñu gis ñun jaaxal nañu ku dugg ci biir bo joxé sa 40 pour wara voter ñun ñu la yow bokko ci liste bi voté woo ñëpp a ngi ni toog ñëpp a ngi toog ñëpp a ngi toog kenn mënul voté ñepp a ngi tok ñi fi taw ñepp kenn ku ne yor nga sa 40 te bëgg a voté te mënoo voté ñun nak ñu koy réclamer ñu koy joy nañ ñu dimbali te respecté ñu bëggu ñu benn violence jàmm rek ñu bëgg waaye nak benn problème lañ fi constaté moy nous avons changé lieu de vote parce que nous créé un centre yu bees lu Moubarak ak centre yoo Nous, avons voté centre de ni di mais sans centre yi ñu gën mais on dirait que sans une seule carte mais problème est lañ y a des milliers de personnes qui ont ni anomalie que nous constaté la nous, faible taux taux de participation Nous constat constat mais sinon lépp mu ngi dëruleen normal y' pas d' incident vraiment nit ñi ñu ngi voté di ñibbi sécurité bi mi ngi taxaw di jël seen ay matuwaay ñu ngi leen ci sant bu baax a baax.